Ousmane Sonko dafa wax ñaari yëf ni il faut Amadou Ba wax fan la jëlee ay milliards xam nga loolu Ousmane Sonko wax Ousmane Sonko toog na fii ci télé bi di défendre Taïbou Ndiaye simple directeur mu ni Taïbou Ndiaye rien que ci fonds commun dina am trois cent millions ci si fonds commun léegi Taïbou Ndiaye bu ma nee am trois cent millions ci fonds commun par Amadou Ba bi nekkoon directeur des impôts jóge fa nekk directeur des impôts et domaines jóge fa nekk ministre des finances kooku ñaata la war am ci fonds commun kon am kon Amadou Ba c'est choquant moom ay milliards et puis Sénégal est xam nga eh, may mun a est-ce que xam nga ministre des finances Sénégal ñaata lay fayeeku. ñaata lay fayeeku. boo nekkee ministre des finances tu es membre de fait de facto des conseils d'administration de toutes les banques structures financières yëpp. prêt boo négocier Sénégal wala xaaj boo indi Sénégal dafa am pour boo jàpp ministre mooy ministre bi nga xam ne ci gouvernement Sénégal mën naa am ay milliards yoo xam ne daf koy am légalement mën ko justifier loolu Ousmane Sonko mu ni nii ni Taïbu Ndiaye daan am trois cent millions ci fonds commun xam na ni Amadou Ba ci carrière am na ay milliards ci ay fonds commun parce que ministre des finances dañ lay fay ci fonds commun douane fay la ci fonds commun trésor fay la ci fonds fonds commun impôt <laughs> donc carrière bi Amadou Ba am bu amul ay milliards foofu kan moo am bu Njaay bi mu doon défendre rek nee na daan na am trois cent millions ci ay fonds commun te moom directeur cadastre lépp la woon kii nekk directeur des impôts puis directeur des impôts puis ministre des finances puis ministre des affaires puis premier ministre nga ne beneen bi mu ni ok Macky la génne ko kaso non non balaa balaa balaa ngay dem foofu mais bu ñu koy attaqué ci ci est-ce que jàpp ñu ne Amadou Ba est mal à euh, ci question boobu est-ce que jàpp ñu ne ñoom laal nañu fuy metti parce que boobaak léegi attaque yooyu yëpp foofu la jëm ci patrimoine am il est milliardaire fan la jëlee ay milliards am. Ba daal bis bu waxoo en tant que ministre des finances li mu am lépp ci fonds commun li mu gagné ci pourcentage ci fonds yu indi Sénégal. bu waxoon en tant que ministre des finance euh, étant membre de facto de conseil d'administration institution yu bari li ñu ko fay bu ko tegoon ci table bi Sénégalais yépp xam ne war naa loolu moom ñu informé ñëpp xam Sonko moom xam na ko parce que Tahibou Ndiaye bi bi li mu am bi mu génnee ñëpp dañoo tiit Sonko moo ñëw ci émission Pape Alé daal ni mais nit dañoo tiit parce que xamul kii li ñuy am wax salaire am ba pare wax ni rien que ci fonds commun rek dina ci am 300 millions par année. kon bi ñu jàppee tey kon tey bu Ndiaye kon kon conséquence. bu fekkee ne bu fekkee ne mën nañu légitimer. la fortune de de Ba. kon tey bu njaay tëj bi ñu ko tëj pour enrichissement illicite kon dañ ko tooñ. loolu beneen problème la. xam noonu xam nga ah détail boobu. non man damay jàll damay démarrer. damay démarrer parce fortune am. mu choqué sénégalais yi voilà mu ne un directeur du cadastre mënul am lii mënul am lii Sonko ñëw na directeur cadastre mën na am lii ndax li tax mu mën a am lii lii lay fayeeku lii lay am ci fonds secret donc boo ko boolee mën na am lii waaye ndegam léegi nag directeur de cadastres moo mën a am ay milliards waa léegi le directeur des des impôts jógee nekk directeur des impôts domaine jógee nekk ministre des finances loolu xanaa ay multi milliards la war ci logique non donc nañu arrêté